sant yàlla julli ci seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu siyaara di leen ndokkeel ci koor gi ñaan yàlla yal nañu nangul suñu koor te jéggal ñu suñuy njumte ci barke koor li nga ànd imam Moustapha Cissé tey nag ñu am gan loo xam ni moom la ñuy àndal ci waxtaan wi muy Oustaz Diassé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 ñu ngi koy ziyaare bu baax di ko wàcce waayam di am mbégte ak kontaante lool ci ànd ak moom ci kër gi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee Nité TV muy télévision boo xam ne macha allah mu ngi liggéey ci lislaam waaye mu ngi liggéey tamit pour askanam tey nag ñu àndoon fi ak imaam pour ñëwoon rek euh, ziyaare ci kër gi ak euh, waxtaan wi nga xamante ni euh, macha allah ñu ngi ci war a ànd ak moom. muy waxtaan boo xamante ni mu ngi aju ci mbiru koor euh, gannaaw bu nuyee tamit suñ mbokk yi nga xam ne ñoom lañu fekk fii kon Seydil Imaam ñu ngi lay delluwaat kàddu gi salaamaaleykum wa rahmatullah waaye oustaz bala ngeen ñëw ci waxtaan wi dafa mel ni tey la cinq te démb la woon 4 avril 4 mhm. avril nag suñ ko waxee mhm. mooy fête indépendance bu Sénégal mhm. euh, bi ñu amee indépendance ak léegi ren mooy ci 63 ans léegi yow oustaz nan nga gisee indépendance ndax ñun am nañ indépendance wala amuñu ko waaw imaam Euh, mën nañoo wax ne indépendance am nañ ko ci zaahir waaye amuñ ko ci baatin ndax tey boo xoolee liy joxe indépendance dëgg-dëgg euh, man mën naa ne daal des nañ koo am parce que bu fekkee ne yaa ngi yore sa réew ñu ne may nañ la indépendance am nga liberté doxal sa réew comme ni nga ko sentire waaye ñun dañoo gis ne suñu réew mi ba léegi ñaña mayoon indépendance ba léegi am na loo xam ne ñu ngi ko téye si ñun ba léegi joxaguñ ñu ko kon mën nañoo wax ne suñu indépendance daal ba léegi des na waaw ba léegi moom suñu indépendance des na parce que xorriya biñ war a am pour diriger suñu réew comme niñ ko sentiree ak comme niñ ko bëggee maa liberté boobu noonu am na loo xam ne ba léegi dafa des waaw. man dama defe ni ci kon ci ñun la des. dëgg la ndax am na réew yoo xam ni ci asiatique yi ak européens yi. 1960 bi ñuy am indépendance Sénégal a leen rawoon sax. dëgg la waaye léegi ñoom fu ñu tuddee réew yi am doole. dañ leen ci boole. dëgg la kon yaakaar naa ni e, tubaab yi. ñoom ñooy ñëw di suqali Sénégal. du ñëw ñëw di defar réew mi. waaye doomu réew mi. yu gëm réew mi bëgg réew mi. Mm-hmm. ñoo mën a fexe ba liggéey mm-hmm. ba ñu gis njariñul indépendance indépendance dëgg la ndax boo xoolee ci li nga xam ni mooy développé réew mm-hmm. mbay mi nga gis mais luñ ko jox triple ba lañ ko waroon a jox dëgg la nga xam ni eh, li ñuy bay dinañ ci mën a dund dëgg la li nga xam ni mooy koom yi nekk ci réew mi eh, di suñuy ressources eh, yooyu itam réew am na ci réew mi loolu dëgg la wallaay doy na waar comme ni nga ko waxee rek imaam senegal réew la boo xam ne yaakaar naa ne lu bari tey nekk lu ñuy jéggaane ci biti mm. mboolem xeeti mbaax rek réewu Sénégal am na ko am na ko ci ay doomu aadama am na ko itamit ci wàllu koom-koom comme li nga fi tudd léegi gaz baa ngi fi pétrole baa ngi fi phosphate baa ngi fi or baa ngi fi géej gaa ngi fi en même temps tamit àll baa ngi fi tàlli ñaret nga xam ne tey damay wax ne état Sénégal bu fekkoon ne ki koy jiite dafay veiller dëgg-dëgg ci mbay léegi ak càmm léegi tey Sénégal romb réew yu bëree bëree bëree bëri parce que tey boo xoolee àll bi tàlli na waaye tey jumtukaay yi ñu war a utiliser àll bi mooy yi ñu ko war a utiliser moom la sénégalais yi manqué te tey boo xoolee tey ñun ñi nga xam ne ay saalum saalum lañ ay baykat lañ euh, boo xoolee daaw lu demee ci wàllu engrais ak jiwu cher na cheraay boo xam ne. baykat boo xamante ni amoo salaire amoo ku la dimbale ci kër nga war a jënd saako ceeb war a joxe dépense bugg a jëndaat benn saakoy engrais cinquante kilos vingt mille francs vingt cinq mille francs xam nga loolu imaam ku ci bëgg a bay dana métti ci yow lool kon li ñuy interpeller état bi mooy ñu bàyyi seen xel bu baax ci mbay mi parce que mbay mi rek mën naa yore Sénégal tey boo xoolee dugub duñ ko jéggaani mboq mën nañ ko ñàkk jéggaani naam ñu ngi importer mboq mi di ko indi fii waaye nag mënoon nañ koo bayee fii nii ndax àll bi yaatu na te baykat yaa ngi fi ba ci matériel yi ñuy bayee sa léegi tey fu mu toll nii soo amul moyen yoo bayee doo am doo doo mën a bay mbay mu kii parce que lépp fu mu toll nii léegi euh, jamono dafa moderniser wu fu mu toll nii ba lu bëree bëree bëri léegi euh, soo amul moyen rek doo ko mën a def kon Sénégal réew la boo xam ne daal imaam réew mi barke na lool lool lool. waaye nag liñ war a bàyyi xel taxawaay bi surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi côté boobu daal war nañ cee bàyyi xel bu baax askan wi di leen dimbale ci yu bëree bëree bëree bëri imaam dëgg la dañoo war jël seen alal bàyyi ñi am euh, asaka génne ko jox ko ñi ko yeyoo ñi nga xam ni génn nañ asaka ba pare des na li ñu mën a dimbalee yeneen doomu aadama yi di dimbalee leen wallaay ndax xam nga dafa bokk ci liy joxe wërsëg di yokk wërsëg di barkeel wërsëg joxe ñam joxe ñam dafa am solo euh, lool dana yokk fan dana yokk wërsëg euh, dana tax ay nit sopp la dina joxe tax nit ñi bëgg la ndax it xaamu taam dafa bokk ci yi nga xam ne dafa am solo mu di joxe ñam kon rawatina nag weeru koor bi euh, boo demee ci réewu arab am na ñoo xam ne weeru koor yu ñëwee dañuy dem ci benn restaurant di ko man weer wi man ngay toggal ñuy dem ci hôtel bu ngoonee dañuy jël ndox jàkk yi mhm. daara yi dañ ko ñàkkal dëgg la ñàkkul dëgg la Sénégal am nañu ko man am am nañu koy mhm. def or bi ci Sabodala la tey doo dem ci na mu waroon a demee dëgg dëgg dëgg te am na Sénégal ndax ba am na ñoo xam bi nekk ci relais ci bu mm-hmm. mm-hmm. njaar maanaam lu mm-hmm. ñu a ba fii yooyu loolu xoolal yàlla jox Sénégal séddale loolu ndax boo amee lu ëpp sa wërsëg rek yàlla dafay séddale da ngay wër te itam wallaay ci alal di ko kontaan naa ko gis rek mën koo jënd da ngay alal yàlla fay rek waaye rawatina woon weeru koor yi nga xam ne moom la ñuy julli weer bi nga xam suñu euh, borom lay sa warugar mooy nga taxaw ci ñi yor alal nit ñi yal na yor alal ji barkeel te yokku waaye yal na leen yàlla xiir ci dimbali euh, nit yi ni wala ñu doomu aadama yi rek ndax li ko moom laa ci jullit wala ku dul jullit képp kuy doomu aadama rek wallaay te nga tane ko war nga ko dimbali ba tax na kon ñi nga xam ne dañuy dimbali daara yi mel ni soo moytuwul dana la dolli feebar. wallaay c 3 ku mel ni Ablaye Diaw Sédiko. ku mel ni Serigne du ko fay ñeneen ñooñu nga xam ne ñu ngi di daara yi di donga daara yi ay concours ay njàng mi ñoom itam dañuy ñaan yàlla bari mais ñi am handicapé bari ñu mel noonu ci réew mi ndax Sénégal dëgg yàlla réewu diine la te bëgg nañ ko xanaa ñàkk xam ngi moo fi ne waaye bari na ñoo xam ne suñu gisee lu leer rek ñu ci xeex bay ci reyante kayaar wala naa ñu gënu ne ni moo di di jàng ak a jàng ñooñu nga xam ne alxayri bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàng ci ñoom la ne yonent bi alayhi salaatu ko man taallama alquraan wa allama gën ci yéen mooy ki mhm. jàng alxuraan ba pare ni ko jàngale te yàlla rek allah kon xayriya boobu mhm. nga bokk ci faaw nga bokk ci ñi jàng ak ñi mhm. weeru koor nag nekk weeru euh, formation ndax dañ la ci jàngal euh, muñ muñ li la lew boo muñee li la lew ci weeru koor ndox lew na lekk lew na

gëm dee gëm dogal bu neex ak bu naqari ak ya ca aju yépp ne dama farataal ci yéen koor comme nu ma ko farataale woon ci xeet yi leen fi jiitu woon kon foofu li ñu fay déggee mooy ne du koor ci julli li la ko yàlla njëkk farataal kon am na yeneen xeet yu fi jotoon na jàll yoo xam ne daan nañu woor waaye nag est-ce que comme ni ñuy wooree ñun ak comme ni ñu ko yàlla digalee noonu leen ko farataale woon foofu mooy différence bi waaye fi yàlla jeexalee mooy pour ngeen mën a ragal yàlla kon koor euh, su ki nit mënta jëlee ragal yàlla rek imaam kon kooram googu noonu daal dafay doy war te koor gi du mën a wér euh, soo gisee yàlla ne laallakum tattaxun parce que tey nit ki mën naa woor su ragalul yàlla sa néeg yow kenn yaa ko moom mën ngaa tëju sa néeg xëcc sa mburoog sa soow boo melee ni ab looyeen looyeen lekk ba yàlla may la jàmm nga xëcc sa potu ndox naan ba su ba màndi génn kan mooy xam ndax woor nga war a wooroo yàlla rek waaye nag ragal nga yàlla mi nga xam ne moom inna allaha la yaxfa alayhi shay'un sama yàlla mi nga xamante ni li ci kaw suuf échappé ko li ci kaw asamaan si échappé ko xam nga ne yàlla moom toujours mu ngi lay fuglu kon yàlla moo mënoon ngay ragal ba mën a ooral say cër ooral sa biir ooral sa làmmiñ ooral sa lépp loo xamante ni dañ laa digal nga woor ko parce que tey soo xoolee ci sooratu Mariama bi sayyidatuna Mariama di doon wax ne wala sooratu taaxala wala sooratu Mariama inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya maanaam dama niser ci yàlla ak woor ba tey duma wax ak kenn parce que sayyidatuna Mariama foofu dafa jël cërëm yépp maanaam tënk ko ci bañ a wax ak kenn ngir armal na yàlla ba nga xamante ni macha allah kon koor daal imaam su si nit mënta jëlee ragal yàlla daal dëgg-dëgg kooram daal des na macha allah. Yalla. Mhm. o ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaareelu at ca gàddaay bi bi nga xamante ni changé nañu xibla gi jullit yi macha allah tolloog fukki weer Gadai. juróom jullit yi mhm. waaye li mu li aay bi wax mhm. daf ñuy won ni kon koor mhm. ndekete woo du ni ko doy ni jàppe rek muy bàyyi lekk bàyyi naan waaye asawmu an tasuma kullal ahda macha allah hmm? cër yëpp dafa war a woor cër yi nag buñ ko waxee loxo ca la mu moom du laal lu moom uh-huh. du lekk lu moom uh-huh. mooy ëpp tànk du dem fu xam ne nii dafay def lu bakkaar dafay waral bakkaar dëgg la du ko dox uh-huh. du ci gunge kenn bët bi du ko xool nopp yi du ko déglu ba kenn yi ko nooyi maanaam sa cëri doomu adama yépp comme ni nga xamante nii noonu ko Mariama waxee eh, woor nekkul bàyyi lekk bàyyiwul bàyyi naan mais say cëri ñooy woor waaw léegi nag. Mhm. Mhm. Mhm. seen waaw imaam ñooñu seen koor ñi nga xamante ni bu wooree ñu ngi ci damier bi ñu ngi ci carte mariage yi ñu ngi ci lido yi ñu ngi ci waxi caaxaan yi ñu ngi ci foyoo xamante ni di leen yóbbu ci loo xamante ni dafay gën a defar seen koor. waaye dafa la ni gën a yàqal seen koor te dafa la ni gën a wàccee ci suuf parce que tey yonent bi sallallahu alayhi wax na ne man lam yada qawla zuri wala amala bihi fa laysa lillahi xaajatun fii an yadaa taamahu wa sharaaba koo xamante ni mënoo bàyyi waxi bebbante waxi caaxaan ak jëf yu mel ni jëf yooyu noonu kooku yàlla amul aaju ci sa xiif amut aaju ci sa ci ci sa naan maanaam sa ñàkk a lekk ak sa ñàkk naan mooy koor gi ngay koor rek su boobaa yàlla amu ci soxla koor gi nga xamante ni moom la yàlla am soxla mooy koor gi nga xam ne nit ki gannaaw bi mu fas yéene woor xëdd jàpp pour woor cëram yépp mu wooral leen wooral ay bëtam wooral làmmiñam wooral ay tànkam wooral ay loxoom comme ni nga ko fi waxee imaam loolu mooy li nga xamante ni moom la koor gi yàlla nangu waaye nag nit ki ne damay woor ba pare ne damay dàq koor xam nga boobaa kon koor nekkatu fa dàq koor gi mooy lan yaa ngi woor yaa ngi ci damier bi yaa ngi woor yaa ngi ci mariage bi yaa ngi woor yaa ngi ci lido bi yooyu yëpp li nga koy defee mooy pour lan maanaam mu fàtte loola xiif ak mar te pour pourtant day nit ki mënoon naa jël kurusam di def ay listixfaar wala muy def laa ilaha illallah wala muy def subhanallah wala muy def yaa latiif ak tur yàlla bu mën a jàpp rek su ko defee dana ci am pay yàlla te dana gën a defar kooram te dana ko yokkal bonus tamit ci koor gi nga xam ne moom lay woor waaye nag su fekkee ne tey yaa ngi woor ne damay dem géej pour dàqi koor damay dem defi leneen pour dàq koor dëgg-dëgg su boobaa yow xiif ak mar rek nga am waaye mën nañoo wax ne amoo koor kon tey bëri nañu bëri ñoo xamante ni tey imaam yu mel noonu ñu ngi ciy waru maanaam ñu ngi ciy ñu ngi ciy perte te yëguñ ko te doomu aadama yonent bi sallallahu dafa wax mu ne ñaar a ngi nii ñu bari si nit ñi dañ leen cee xëpp maanaam dañ leen cee nax muy wér-gi-yaram ak temps tey sa soo amee wér fexeel sa kàttan loolu noonu nga exploité ko def ci loo xam ne daf lay jëriñ ëllëg soo amee temps yi tamit fexeel temps boobu nga am su dee da nga war a liggéey nga liggéey soo waree jaamu yàlla nga jaamu yàlla waaye temps boobu daal fexeel ba bul ko perte ci loo xamante ni ëllëg ay duma nga ci jële waaye doo ci jële ak pay imaam. Euh, mhm. kon koor nekkul bàyyi lekk rek bàyyi naan. Mhm. waaye dafa am yu muy àndal. Mhm. ndax loolay joxe ragal yàlla gi. macha allah kon. Euh, yàlla bi mu farataalee koor. ci waaw yàlla daal bi mu waxee yaa ayyuhal lazina aamanu kutiba aleykum siyaam foofu jullit ñi ñëpp dañuy dugg waaye nag dafa am foo xam ne buñ fa yeggee dana am ñu ci génnee am ñoo xam ne ñoom ñoo cay des ñañ ciy génnee mooy ñi nga xam ne tey mësoor aguñ ñooñu moom dafa leen di neex ñu woor mu naqari leen ñu bàyyi wala ñu man def mënuñ ñu bàyyi. mazoor ci lislaam mooy suñ ko waxee ci olof bi. mooy koo xam ne mën na mu kalaf. mu kalaf ci euh, baatu araab la. waaye ci olof bi dëgg. mooy koo xam ne tey su dee góor la am na 18 ans. walla mu sax karaw yi poqotaan. wala mu sax karaw yi naq. foofu dañ koy xàmmee ne kii mën na mu kalaf léegi li waroon papaam ci wàllu jaamu yàlla daf koy war léegi su dee ci jigéen la ñu ne mooy koo xam ne dafa commencé gis baax mooy koo xam ne commencé ne gis règle kooku tamit li war yaayam ci wàllu jaamu yàlla daf koy daal di war mais tànk ku góor ki yeggut foofu wala ku jigéen ki yeggut fële su boobaa ñooñu mataguñ mu kalaf ñooñu lu ñu def ci mbiri jaamu yàlla rek seen coobare lañ koy defee waaye du dul loo xam ne lislaam dafa leen koy forcer kon koor yàlla farataal na ko ci jullit ñi waaye nag koo xamante ni tamit mën na ko kooku la ko yàlla farataal ku ko mënu tamit donte mën nga mukkalafit lislaam da la koy teggil waaye am na yeneen yoo xam ne mu ngi làmboo ci biir su fekkee dafay ajooy tamit ñu gën koo yaatal rek incha allah imaam danañ ci ñëw bu soobee yàlla. Mhm. nga man ka. Mhm. waaye faaw itam nga. ràññee. Mhm. am xel. am xel waaw. maanaam door a mën a woor. Mhm. yàlla def na ci ak yolomal. Mhm. kuy tukki sax. may nañ la donte majeur nga. wér nga tal nga fekk nga am nga xel. waaye yàlla dafa dogal ngay tukki. tukki boo xam ne mooy yàlla taxul na. dëgg la booba yolomal nañ la. nga bañ a woor ba boo ñibbisee. nga fay nga fay. Euh, ma ngay waxaat ni. ku feebar itam. mën woor uh-huh. may nañ la uh-huh. nga bañ woor bu uh-huh. waaye bu weer wi jeexee da fay da fay kon ay conditions yu bëri mi ngi aju ci koor bi du jàggi ne rek jullit laa damaa war a war a woor déedéet dëgg la ndax euh, ngi fi wéradee ngi fi euh, maanaam tukkee ngi fi Eh, yi man a gaar nit yu bëri ba du woor uh-huh. bari na uh-huh. kon nag uh-huh. yooyu nga xam ne nii day gaar doomu aadama nga xam ne bu dee jigéen léeg-léeg ngantam mën na yàgg mën na am juróom-ñeenti weer mu nekk ko ci en te gis na ni bu wooree moom daf koy andil lor lislaam daf koy may ñàkk woor waaye dana fay koor su fekkente ni nii uh-huh. euh, dafa tukki uh-huh. kuy tukki la uh-huh. wala jigéen bi dafa am doom te setagul kooku koor gi wàcc na wàcc na ko su fekkee day nàmpal te bu woore euh, lor ki muy nàmpal dañ koy teggil koor gi waaye bor la bu mu ne ci kawam daf koy fay daf koy fay kon euh, koor man ko. Uh-huh. daf ciy baax. Uh-huh. waaye xam ko itam. da ciy baax daf ciy baax bala ngaa dugg ci loo xam ni daf lay lor. dëgg la ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa wax uh-huh. bul lor kenn. waaye kon lépp looy def rek. nañ ci jiital xam-xam. nañ ci jiital. Uh, teg ko ci sunna yonent bi. sallallahu alayhi wa léegi nag. Uh, weeru koor yi ñu ci. yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee nañu mhm. kaana ajwadu naas macha allah wa ajwad maa yakun fi ah. sax ramadan macha allah yonent bi ku tabe woon la mhm. waaye tabeem boobu li muy tabe tabe weeru koor bu ñëwee day ni ci lay gën a tabe mhm. léegi ahmaanul xayr yi nga xam ni euh, jullit bi daf ci bénéfice ci weeru koor yooyu laa bëgg nga limal ñu ci tuuti rek weeru ngëneel la te comme ni nga ko waxee léegi sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a tabe ci li yàlla bind waaye nag tabeem daan na rawati ci weeru koor ñëwee dañ doon wax ne yonent bi ku tabe woon la waaye ci weeru koor ñëwaan ci la daan gën a tabe ndax weeru koor imaam tey du woor rekk la ci nit mën a jëlee ci ay yiw suñu waxee nag assasiye bi moom mooy woor waaye nag am na yu ne ci gannaaw yu bari yoo xam ne mën naa dimbale nit ki ba kooram daal dëgg-dëgg dana nekk lu rëy rëy fa yàlla comme ni nga ko waxee léegi amaalal xayraat yi nga xam ne tey jaam bi war na koo doxalee ci digganteem ak jaami yàlla yi tey ñi nga xam ne mën nañ ah, su fekkee ne ñu ngi gëstu ñi mënul rekk loolu dëgg-dëgg tiyaaba ju ci nekk kenn mënula lu ko wax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na weeru koor nit woor ba ngoon jot nga jox ko lum dogee yàlla dana la jox yoolu bu toll ni comme ki nga xam ne dafa wóoroon nga dogal ko te du tax yàlla wàññi ci yoolam yoolu kooram dara kon yow dafa mel ni ki yow woor nga dogal nga ku woor yow dafa mel ni kon bés bi dafa mel ni ñaari yoon nga ci woor ci bës bi xam nga ne loolu ku ko xam tey même su doon ne chaque jour da ngay jënd tàndarma juróomi dërëm sax jox ko nit ne ko am dogal sax def ko parce que tey yonent bi ay waxam moom nekkul loo xamante ni dañ ci jiix a jaax lu mu wax lu nekk rek loolu moom macha allah lu wér la te ku ko jëfit di nga xam ne li yonent bi sallallahu alayhi wax dëgg la kon jëf lu baax ci jaam yàlla yi nit ki mën na cee góorgóorlu jamono ju ne waaye nag dafay rawate ci weeru koor ndax weer la woo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku ci jooxe benn farata dafa mel ni ki jooxe nga ko ci lu duhut weeru koor woo xamante ni juróom-ñaar fukki daraja noonu lay toll ci farata boobu noonu nga xamante ni def nga ko kon nag soo si defee lu baax yàlla dala koy fulal ndax yonent bi yàlla wax na ci xadiisul xudsi yi ne mu lii wa ana ajisi bi ndax koor man maa ko moom te man maa koy fayal sama bopp ndax addis bi sax fu mu commencé daf ne kullu amali ibni aadama lahu illa ma fa innahu lii wa ana ajisi bi bépp jëfi doomu aadama moom la ñeel ba mu des koor ndax koor man yàlla maa ko moom te man yàlla maa koy fayal sama bopp kon dëgg-dëgg imaam képp koo xam ne yàlla dénk na la wërsëg nga mën a def ay ndogu di ko jox jaam yàlla yi ñu koy ndogoo yàlla dala ciy fay dana la ci bindal tiyaabo te dana la jox yool yi comme ñi nga xamante ni dogal nga leen seen koor yooyu noonu yàlla dana la jox koor gu tool ni seen koor googu noonu kon def lu baax daal ci weeru koor imaam lu ci nit mën a góorloo mu góorgóorloo ci ndax loo ci def rek yàlla dal la ko fulandil ba mu toll ci ilaa macha allah. jërëjëf euh, julli uh-huh. di def ay naafila uh-huh. weeru ñëwee uh-huh. ci nga ko war a gën a bari bari ci daan jàng alxuraan avant weeru koor ñëw na ci nga war a gën a bari looy looy jàng alxuraan alxuraan dëgg la da daan saraxe weeru ñëw na da gën a yokk sa loxo ci sarax sarax yi ndax xam nga borom alal yi ñoom kenn soxlawul leen ci jàkka yi. déedéet seen i ràkka dafa war a nekk seen i poos. macha allah ñoom dañoo war jël seen alal. Uh-huh. ñi am. Uh-huh. asaka. ñu uh-huh. génne ko jox ko ñi ko yeyoo. ñi nga xam ne génne nañ asaka ba pare dese lu di mën a yeneen doomu aadama yi. wallaay ñu dimbalee leen ko. dëgg la ndax xam nga dafa bokk ci liy joxe wërsëg. di yokk wërsëg di barkeel wërsëg. joxe ñam macha allah joxe ñam dafa am solo lool. dana yokk fan uh-huh. dana yokk wërsëg uh-huh. dana tax ay nit sopp la uh-huh. dina joxe tax nit ñi bëgg la wallaay ndax itxaamu taam dafa bokk ñi nga xam ne dafa am solo mu di joxe ñam wallaay léegi kon rawatina nag weeru koor wi euh, boo demee ci réew arab yi am na ñoo xam ne weeru wi ñëwee dañuy dem ci benn restaurant ni ko man weer bi man ngay toggal ñuy dem jël hôtel bu ngoonee uh-huh. dañuy jël ndox yëpp yóbbu ci jàkka yi uh-huh. ci daara yi uh-huh. eh, ngir di wut tiyaaba di wut tiyaaba te Sénégal am nañu ko man naam am nañu koy def waaye dimbali bi ñu dafa des wallaay ba tey am na ñoo xam ni bu jotee bu ñu dogoo itam maanaam lu ñu war a lekkaat ginnaaw bi duñ ko am duñ ko am wallaay séddale loo leen ndax boo amee lu ëpp sa wërsëg rek yàlla daf dalaa séddaloo wallaay te itam denc alal di ko compté amul njariñ da ngay dépenser sa alal yàlla fay la ci waaye rawatina war weer koor wi nga xam ne moom dañ koy juble weer wi nga xam ni loo ci def rek suñu borom da koy ful dëgg la kon ñu yor alal yal na alal ji barkeel. amiin yaa rabbi te yokku. waaye yal na leen yàlla xiir ci <coughs> dimbali. Mhm. nit yi diine yi wala nit doomu aadama yi rek. Mhm. ndax ndimbal moom laajul jullit wala ku dul jullit. wallaay képp kuy doomu aadama rek. Mhm. Eh, te ko. war nga koo dimbali. ba tax na kon ñi nga xam ne dañuy dimbali daara yi. ku mel ni Serigne eh, Seck. C3S. ku mel ni Ablaye Jabu Seniko uh-huh. ku mel ni Serigne Mbuub ak uh-huh. as ndaw jubli uh-huh. daara jubli donga daara ci ay concours ci ay lu ne ñoom itam dañuy ñaan yàlla bari seen i kem amiin yaa rabbi bari ñu mel noonu ci réew mi allah amiin ndax Sénégal wax dëgg yàlla la dëgg la te bëgg nañ ko xanaa ñàkk xam gi moo fi ne waaye bari na xam ni mhm. suñu gisee lu leer rek mhm. danañ ci def seen alal wallaay nag foog naa ni def alal benn gënu ci yey mhm. li nga xam ne ni moo di ñii ne ci daara yi daara yi wallaay a jàngale dëgg la ñooñu nga xam ne alxayre bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale uh-huh. ci la nekk ci ñoom la nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam uh-huh. dafa wax ni xayrukum uh-huh. man taallama wa allamahu wallaay ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran ba pare ko jàngale te yàlla rek tax wallaay kon xayriya boobu pour nga bokk ci faaw nga bokk ci ñi jàng ak ñi jàngale wallaahi eh, reer koor nag Mm-hmm. nekk weer woo xam ni mm-hmm. euh, weeru formation mm-hmm. ndax dañ la ci jàngal muñ muñ li la lew boo muñee li nga li la lew ci weeru koor ndox mi lew na la euh, lekk gi lew na la dagan na ci yow mm-hmm. sa soxna lew na la dagan na mais mm-hmm. loolu lépp nga muñ ko weeru koor mm-hmm. ngir jëfe ndigalu suñu borom kon bu weeru koor yu jeexee li lay jàngal mooy sa résultat bi mooy ku muñ li dagan di mën a muñ li la daganut macha allah lépp loo xam ne araam na ginnaaw weeru koor mën ngaa muñ di dagan uh-huh. li araam moom di nga ko mën a muñ uh-huh. ndax di nga xam ni weeru koor bi jàngal na la ragal yàlla uh-huh. jàngal na li mënoon ngaa mar mënoon ngaa naan te kenn du ko yëg dëgg la mënoon ngaa lekk kenn du ko yëg mënoon ngaa jëfandikoo sa la ngay jëfandikoo te kenn du ko yëg waaye lu lépp nga bakko ngir yàlla kon ni nga muñee lu dagan loolu résultat koor mooy bu ah, mën a muñ dootu rafet ci yow dootu neex ci yow dootoo ko bëgg ndax da xam ni weeru koor jàngal na la muñ uh-huh. kon muñ dafa am solo lool uh-huh. ci weeru koor ci yim ñuy jàngal uh-huh. waaye eh, ci biir weeru koor ba daf ñuy jàngal moo di eh, ragal yàlla ragal yàlla nag du caagi ne man damaa ragal yàlla wala nanga mais déedéet say wax la macha allah koy allah sa misaan boo xam ne. Mhm. ci lay peese lépp. Mhm. ndax yàlla bëgg na lii ndax yàlla bëgg ko. Mhm. lu yonent bi wax. ndax li sunna si yonent bi la. ndax yonent bi digliwu ko. ndax tere na ko lu mu ci wax. loolu yëpp boo ko tegee sa kanam. looy dugg rek. dana rafet. looy génn itam. dana rafet. dëgg la kon koor ñëw na. ñu ngi fukki fan yu njëkk yi jàll na. moo doon yërmande. yal nañu ko yàlla defal. amiin yaa rabbi ñu ci fukki fan yi nga xam ni. li mhm. ko yeneen bi wax ni wasatu ko maxfira maxfira mhm. digg bi mooy jéggalu yàlla te ni ma tooñ lool mhm. kon loolu ñuy ci fan yi nga xam ni dañ cee war a jéggalu suñu borom mhm. sàkku ci jéggalam mhm. rawatina suñu réew mi fi mu toll mhm. ci crise politique bi ñu nekk ak ndaw ñi ak mag ñi nga xam ne kilifa jafe na léegi wax ñu dégglu la jafe na léegi léegi kenn ku ñuy wax naan la waxal rek dañu bëgg nga wax lu ñu neex waaye pour nga wax dëgg ñu ànd ci yëngu dëgg waaw macha allah imam dama bëgg a delluwaat ginnaaw tuuti rek ci wàllu ragal yàlla gi ngay wax ndax ragal yàlla dafa am solo ci lépp tey doomu aadama lépp lu muy ut rek maanaam la muy ut lu mën a doon rek su si jiitalee ragal yàlla rek dana sotti soo bëggee xam-xam yàlla ne wattaqullaha wa yuallimukumullah su ngeen bëggee xam-xam ragal leen yàlla yàlla xamal leen kon danga gis nit mu jàng ba sonn wax ñu naan ah kii day nangam ak nangam xaj na xam-xamam boobu ñàkk ragal yàlla moo ko lalul waaye soo ragalee yàlla donte li nga jàng lu néew la soo waxee dafay mel ni ki jàng téere yépp nit ñi di la yem loolu li la koy may mooy ragal yàlla aljana ku ko bëgg ragalal yàlla wërsëg boo ko bëggee ragalal yàlla soo bëggee nit ñi weg la sax boo ragalee yàlla yàlla mooy yebal nit ñi ci nit ñi ñu ñu ñu weg la kon ragal yàlla dafa làmboo lu bëree bëri bëri bëri kon imaam comme ni nga ko waxee sànq génne nañ ci fukki fan yu njëkk yi. Mhm. Mhm. ah déet ñooñu moom parce que mbalit moom xam nga mbalit moom du lépp lépp mooy baax boo rato te yaakaar naa ne lu ñuy rato moom di dajale lakk rek moo ci jaadu waaye kenn du ko jëfandikoo walla boo ciy jëli la nga cey jël du bari la cay sànni ji moom mooy ëpp kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ittaqullaha wa ajmiloo fi talab ragaleen yàlla te rafetal wutin wi léegi nag ñun jamono ji euh, li ñu sonal mooy noo ko amee rek baax na waaw kañ nu ma ko mën a amee rek baax na waaye duñ ci jiital ragal yàlla tey fu mu toll nii boo ñëwee ñu tegal la fii tey un million te mu leer na la un million yi boo ko jëfandikoo rek da nga am lu bari loo jaay sa diine dana am lu bari loo jaay sa ngor soo ragalu yàlla da nga jël un million yooyu jëfandikoo ko waaye soo ragalee yàlla euh, am dignité sa bopp respecter sa diine million yooyu noonu maanaam doo ko gis li olof di wax ne xiif bu mu la taxa naan potit loolu nit ñi dañ ko war a bàyyi xel bu baax jamono nag métti na ba nga xam ne léegi ku ragalul yàlla noo mën a amee xaalis rek da nga ko def pour amee noonu xaalis. Mhm. wala ñuy waxtaan ci diine nga. koy déglu yaa ngi sacrifier. Mhm. sa temps bi. Mhm. ci l'islam. macha allah waaye li bon mooy woor ba ngoon jot. ngay xool ay film yoo xam ne. ay bakkaar rek nga ciy jëlee. wallaay yaa ngi dañuy tuub yaa ngi gën a yokk say bakkaar. yaa ngi woor ba ngoon xooloo loo lenn lay jariñ. loo xam ne mën na cee jàngat bis bi tey jii yokku naa. parce nit yi toujours. da nga war a def. boo demee ba jant so uh-huh. nga xool bi nga yeewoo uh-huh. ba ni nga doge uh-huh. lan nga fi def lu neex yàlla macha allah ak lan laa fi def loo xam ne leer na ma ñu lii yàlla tuub ko bala maa tëdd wallaahi fas yéene dootuma ko defaat kon tuub jamono bu nekk dañ ko war def ndax day wallaahi ragal yàlla te wa min xasiyatika laa yaxaafu ko kulla ahad soo demee ba ragal yàlla dëgg dëgg lu yàlla bind daf lay ragal lu yàlla rek daf lay ragal kon ragal yàlla am na solo lool. macha allah rawatina nag ci weeru koor euh, léegi nag. Mm-hmm. weeru koor ni ñu ko waxee ci la alquran wàcc. Mm-hmm. Euh, bi mu ci wàccee yonent bi alayhi salaatu wa mm-hmm. ci jibril la jaar. jaar ci yonent bi. ñëw ci weeru koor. ñëw ci. laylatul qadri ñëw ci ummatu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye bi mu jaar ci jibril jaar ci yonent bi jaar ci weer koor jaar ci laylatul qadr yëpp amul benn condition wala dañu yàlla ko wàcce ñu ñëw waaye bi ñëw ci yonent bi aw xeetam nag lan la yàlla wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar su ngeen bokk ci ñi gën ci xeet pour ngeen bokk ci ñi gën ci xeet yi fi jiitoo uh-huh. ak yi mën a doon uh-huh. faawu ngeen di digle lu baax uh-huh. di teral lu baax li nga xam ne woor bi naa yàqu koor déedéet sangu bi moom du yàqu koor euh, parce que dañuy wax ne su fekkee ne nit ki dafa nekk foo xam ne maanaam ci bërëb dafa tàng tàngoor woo xam ne degré tàngaay bi daal mm-hmm. dëgg-dëgg ëpp na àpp comme boo demee waaw Tambacounda wala Baka Bakel la yu demee noonu nga xam ne fan yi maa ngi gis sama benn waaye Kaolack mu naan euh, température bi mu ngi toll ci 42 degré ba 41 degré xam nga loolu tàng na kon jël ndox di ko tuuroo sa yaram pour mu seddal sa yaram maa daama ndox mi bu yeggut sa biir sa biir gémmiñ gi rek su boobaa loolu du yàq sa koor waaye nag bu fekkee ne da nga nekk foo xam ne amoo benn jafe tàngaay. jël ndox boobu di ko di ko sotti sa kaw yàqul sa koor waaye li ngay def moom gënul waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. koo xam la. bën bën yi nga xam ne fi la ndox mën a jaar dugg ci nit jaaru ko uh-huh. kon koor bi yàquwul uh-huh. koo xamante ni itam uh-huh. nga fanaanoo janaba nga yàqut koor kon koor li koy yàq bokk na ca lekk te tay ko wala naan te tay ko wala jot jigéen te tay ko te yooyu dafay yàq koor dëgg la waaye bu loolu amul rek uh-huh. koor moom uh-huh. du yomba yàq uh-huh. kon euh, jullit yi weer wi war nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax gën ci profito ndax borom alal yi tey yu bari ñu ngi dem umra di ci dem màkka di siyaare pourtant def loolu de baax na lool. mais am na màkk bu ne seen wetu bunt kër. wallaay moo gën a jige. te màkk googu la yàlla yi gën a nangu. wallaay la ji. ndax misaal bi dafa am benn waay. dafa tàggoo ni day dem màkk. waaye yéex a tàggu. dëkkandoom bi mu sësalul kër. ba mu ne suba laay dem. te waaj ne ba pare. la ni soxnaam uh-huh. demal ci suma dëkkandoo bi uh-huh. nga waxal ma leen uh-huh. nga tàggul ma leen soxna si dem fekk ñooño teg seenum xar di ko miis wi di ko lakk di lekk te ndaw si nekk jigéenu biir maanaam moomul boppam dafa nekk en léegi ñoom mayuñu ko ci ndawal bi léegi nak uh-huh. mu neen sama borom kër de moo ma yónni woon nee na day dem màkk ñu uh-huh. ngi dee jéggulu ndax daf leen yéex a ndax suba lay dem uh-huh. bi mu ñëwee mu ni jëkkër ji man dañee dama laan fekk ñuy lekk ndawal te sama xela nga ca te may ñu ma ci dama bëggoon nga yoni ndax ñu may ma ca tuuti wallaay ndax sama xela ngi ci jëkkër ji daal di yónni ñooñu gàntal ko ko mënoo cee la ji dem ni leen yéen xam ngeen ni man mii am paas bay dem mag lekk ndawal jaaxaluma kon sama soxna si nekk gi mu nekk état gis na ndawal bi ngeen di lekk rek mu leen ci ñaan ngeen di dag daganul mën a dagane ci yéen te daganul ci ñun dëkkandoo ba ni ko dagan na ci ñun de waaye yow daganul ci yow nga lekk ko yàgg sa soxna mu ni ko lu tax mu ni ko parce que ñun ñetti fan a ngi lekkuñu wallaahi dañoo xëy nag mhm. dem ca mbalit ma fekk ñu sànni fa benn xar bu dee mhm. ñu dagg ca benn tànk ñëw moom lañuy lekk macha allah waa ji ndeysaan mhm. yaramam daw ca loolu la jóge ba dafa daal di dem la mu naroon yóbbu màkk lépp mu dem jox ko dëkkandoor yi macha allah xaritam bi mu waajaloon nga xam ni joxe nañu rendez pour aéroport war a ànd kooku bi mu demee aéroport gisul kenn mu dem màkk gisul waaj te amul fu mu koy jote xamul ci lu mu nekk waaye nee guddi gu nekk mhm. dana gént ñu ni ko ku yàlla nangul ajam tey rek ko nangu ci barke bu waajur sa xarit boobu ñëw macha allah yàkkal ko ñëw si bi aj ji jeexee fa mhm. laaj waaj mu ne ko yow maaka mhm. moom dem nañ ba ñëw tegante wuñu bët gisante wuñu fenn yow foo daloon fu ne xool naa la mu ne ko ha mu ni ko waaw mu ne ko lool sax jaaxaluma mais li ma jaaxal mooy guddi gu jot dinaa gént ñu ni ma ku yàlla nungul ajam tey ren mi ngi ko jaarale ci yow. nekk jaarale ci yow yow loo def. ndeysaan. waa ji ree. ñu <laughs> nekk a tey. Uh-huh. mu ni ko damaa waaj ba war a dem. Uh-huh. ndeke sama dëkkandoo bi ma dëkkal. Uh-huh. lekk sax amu ko waxuma laa naan. ndeysaan ñëpp sax nee nañ am nañ ko. kër gi ci tàkk. looloo tax ma jël la waroon a yóbbu. ma jox lañ ko ci kaw uh-huh. kon nga gis ni aji màkka uh-huh. baax na lool uh-huh. umra baax na lool baax na lool waaye nag sa dëkkandoo yi nga xam ni yàlla dala koy laaj bu ëllëgee ndax yenent bi salaa salaam ni mu ko waxe woon ni maa saala jibril yusini bil jaar xata zanantu annahu sa yurusi jibril musta dañ di ma dénk ci dëkkandoo ba ma defee ni dëkkandoo soo dee moom la war a doon wallaay laaj kon bàyyi xel sa dëkkandoo. Mhm. te ñeent fukki kër yi la wër yëpp say dëkkandoo lañ mhm. ku ci feebar. Mhm. ku ci ne ci jàmm. ku safaan yëpp war nga leen nimmeeku. wallaay laaj la. ñu nag fii ñu nekk nga xam ni mooy Ndakaaru. da ngay sësalum nit kër. wala ñaari kër dox seen diggante. ak ñoo xamante wallaay te loolu du dëkkandoo bu rafet. jaaduwul sax. te bu ñu bokkee jàkk. Euh, bokk juma. suñuy doom bokk ay écoles yi ñuy jàng mhm. ñun ñu bokk mbedd yi mhm. war nañu xamante mhm. war nañu di seetante war nañu yëgante war nañu dimbalante te yàlla kon dimbalante jamono bu nekk la baax waaye weeru koor wi daf ci raw nit ki nag asaka yi ñuy génn ci weer koor di séddale ay mille francs ki cinq mille ki dix mille loolu taxul woon yàlla yow yàlla dafa bëgg boo génnee som am solo nga seet jàmbaar joo xam ne jàmbaar la waaye ay yorut uh-huh. nga dimbali ko ndax moom mu mën a liggéey ba bu déwénee uh-huh. moom it mu mën a génne asaka uh-huh. bu ko defee bu yàggee ñëpp di génne asaka dootuñu gis sax kuy laaj asaka loolu moom la ñu bëgg waaye génne sa asaka au lieu kon nga jox ko miskin yi ñu jox leen som bu am solo ñu mën a liggéey waaye nga di ko séddale ay cinq mille ay dix loolu wax dëgg yàlla taxul woon ñuy wax asaka macha allah asaka dafa dimbalante jullit ak morom mhm. waaye dafa ñëw ngir créer emploi macha allah ñu mhm. bëgg génne ay millions mhm. loolu muy génne mu man koo jox ay ndaw yoo xam ne am nañu métier wala am nañu formation pour

dana umra ji bu aj ñëwee dana aji te loolu ay million la te dañu wax ne aj benn bu njëkk bi rek mooy farata yi ci des yépp sunna la ndax dañuy wax ne soo ajee aj bu njëkk joxe nga sa farata soo ajee ñaari yoon lebal nga yàlla soo ajee ñetti yoon goreel nga sa bopp ci safara waaw noonu waxee nañ ko noonu waaye li ci gën a am solo daal mooy aj moom benn bi mooy farata imaam su fekkee ne waa ji mu ngi dëkk ak ay nit ñoo xam ne leer na ko leer yàlla ne ñii nii tey buñ añee duñu reer suñu reeree duñu ndékki moom mu ngi dëkk ak ñoom euh, amaana sax seen dëkkuwaay sax maanaam jekkul nga mën a jël ay million di ko def ci dem màkka at bu jot te mu leer na la millions yooyu boo ko jëloon mën nga leen cee tabaxal kër gu baax yëkkati xaalis bu am solo teg ko nga xam ne ñoom loolu danañ ci mën a sukkandiku liggéey ci liggéey boo xam ne ëllëg danañ bokk sax ñuy génne asaka te imaam Sénégal fii am na fi ñoo xam ne yàlla dénk na leen wërsëg bari nañ kaar macha allah tey bu fekkoon ne ñëpp ñuy génne asaka comme ni mu waree wallahi alazim konoon ndóol dana jóge ci réew mi parce que kenn ku ne koñ bi nga dëkk rek la nekk ci ay millionnaire la nekk ci ay milliardaire bu fekkoon ne kenn ku ne imagineel koo xam ne mu ngi amee un milliard ci alal war a génne asaka kook ñaata la war a génnee ci asaka xaalis bu bëri la tey xaalis boobu noonu boo ko dugalee ci benn famille defar nga famille boobu famille boobu noonu bu ñu yaafuusul bu ñu liggéeyee ëllëg ñoom it danañ bokk ci ñuy génne asaka xam xam junniy waaw junniy million. vingt cinq mille. Ah. yaakaar naa dix million la de su ma juumul. waaw dana war a mat dix million yaakaar naa de. un milliard bu ne. war naa war naa génne dix million au dama ko dama ko nattee foofu rek. <laughs> dama ko nattee foofu rek. Mm-hmm. léegi nag bu fekkee ne tey ku mel noonu. ak mm-hmm. ji nga xamante ni moomu ko. Mm-hmm. àqi jàmbur la mm-hmm. mu génne ko mm-hmm. joxe ko mm-hmm. su fekkoon ne tey ñëpp a ngi def noonu ñi ko am ci wàllu gàtt yi ñu koy def ñi ko am ci wàllu xaalis ñu koy def ñi ko am ci wàllu leneen loo xam ne asaka da cee war ñu koy def ku doon imaam bu yàggee coono bi yëpp danañu wàcc imagineel ñiy bay soble ñiy bay ay tamaate ay pomme de terre ay ay supame yooyu yëpp xam nga da ci war a génne asaka waatu waatu xaqaw yow ma xasaadi la yàlla wax tey boo récolté say supame nga génnee ci li nga xam ne mooy àqi azaka ji nga seet ñoo ko séddale tey boo ko dugalee ci ay kër tey ñooñu wàññil nga leen dépense hmm? bu dee pomme de terre la noonu bu dee soble tamit noonu tey yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo indi lislaam jàngal ñu lislaam te bu fekkoon ne ñu ngi koy pratiquer comme ni ñu ko war a pratiquer dund dund bu yomb yomb imaam moom la ñu am yonent bi benn waaye dafa ñëw ne ko dama dama lay laaj ban islaam moo gën yonent bi mooy nag mu ne ko nga wax jàmm ci koo xam ak koo xamut waaye tamit lele ñam imaam lele ñam dafa am solo lele ñam dafa am solo trop te nit ñi dañ koy sàgganee wallaay togg togg gu baax yëkkati ko dem jox ko ñu koy yelloo nga jox leen ko ñu lekk ba suur ñoo ñu billaay buñ ne allahuma bu musiba naroon a wàcc ci réew mi sax yàlla mën na koo fànq ngir seen ñaan googu noonu te cosaan li foofu la bàyyeekoo parce que tey ñooñu bu ñu jëlee seen alal di ko def ci ay conteneur di ko indil jaam yàlla yi fii di leen ko séddale tey loolu moom moo law ba ñëw roogaat ci suñu réew yi nga xamante ni tey jumaa yi bëri yi ñu fi tabax teen yi bëri yi ñu fi gas daara yi bëri yi ñu fi tabax këri jirim yi bëri yi ñu fi tabax di leen dundal di leen yore bañ mënal seen bopp loolu yëpp foofu la soqee ko kon daal dañoo nekk ci diina jooy xam ne la joo xam ne diinay taawunu alal birri wa taqwa waaye nekku diina joo xam ne taawunu alal ismi wal odwaan la kon foofu noonu dañ fa war a bàyyi xel suñu bàyyi suñu xel ba imaam jërëjëf oustaz xam naa dimbalante Sénégalais moom bu ñu nekkee borom alal sax ñu bokk dëkk mhm. sama kër nekk deuxième position mhm. yow mi nga xam ne yaa néew doole yaay première position ne ci angle bi mhm. booleeg sa kër gi wallaay. Uh-huh. xalaatuñu ko wallaay. ndeysaan amoon na fii ci caaro yi. Uh-huh. benn borom alal. Uh-huh. Euh, kër ga nag dafa nekk ci deuxième position. kii nekk première position bi nag yàlla def mu néew doole lool. ndeysaan. waa ji topp ko naan ko jaay sa kër gi. ndax sama kër gi lu ma ko tabax tabax mënta fis mënta feeñ. ndax sa kër gi moom a baare sa ardoise yi sa nàngam uh-huh. yàlla def borom alal ba mujj gaañu dëgg la nga gis ni ki am uh-huh. bu gisul li mu am uh-huh. du ci mën a gis yàlla wallaahi ndax alal lu mu tuuti tuuti rek boo ci gisee boo ko gisee rek mu doy dana barkeel te diñ ci sawar a jaamu yàlla waaye soo fekkente ni da nga defee sa ngóora moo la may wala say pexe moo la may ah da ngay defee ni boo defal rek mu raw la wala mu dat la. dëgg la wala mu mel ni yow. coxor dugg la ba doo ci defal kenn. wallaay la te loolu musiba lay jural doomu aadama bi. ndax alal moom. Euh, lépp loo ci def rek. la la yeneen téere Seydina Ali waxoon rek. nee na lu ca bari. lu ca tuuti. des na ko régler. macha allah. lu ca bari itam. des na ko régler. des na ko régler. dëgg la kon. lebal ci yàlla mhm. bala ngaa dem ci yàlla mhm. ndax yàlla moom boo ko lebalee mhm. wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayri tajiduhu inda lépp lu baax loo def te yàlla tax ma nga toog di la xaar kon jamono ju nekk ndimbal baax na macha allah waaye weeru koor daf cee raw waaye oustaz am na ñoo xam ne weeru koor bu ñëwee dañuy mel ni amit tëngoom rek mhm. yéen nelaw rek <laughs> dañuy nelaw di gàllax ndiku di teg mhm. teg bi wala ñu teg gutéel bi léeg-léeg ñu ñu nelawul moom mhm. ñu bëgg gàllax ndiku moom dañuy yéen nelaw rek maanaam douze heures de temps yi nga war a woor ñoom daanaka boo xoolee huit temps yi dañ koy nelaw ñooñu moom loolu lañ di wax waaw ñooñu moom sàggan rek sàggan rek gaa seen koor gi dana wér waaye nag ñu sàggana sàggan lañ parce que xiif ak mar dama woor rek damay tëdd nelaw duma liggéey loolu nag ku am ku la liggéeyal moo ko sañ a def waaye bu fekkee ne yaa ngi war a liggéey ah lu metti métti da nga jóg liggéey waaye nag bu dee yàlla dénk na la wërsëg nga xam ne soo tëddee dara du taxaw yaa ngi am sa mbindaan fële mu ngi ca waañ ba yaa ngi am sa mbindaan mu ngi ménager yaa ngi am sa keneen ak keneen mu lay doxal say service sa poos bi diis na su la neexee man ngaa commencé nelaw la huit ci suba ba deux heures nga jóg julli tisbaar dellu yéegaat ci lal bi dellu tëddaat ba tàkkusaan nga yeew def noonu daal ba heure dog jot nga door a génn dog kenn gënu laa sàggan kenn gënu laa sàggan sa koor gi wér na nag waaye kenn gënu laa sàggan ni nga war a def mooy xam nga imam mag ñi duñ daan nelaw maanaam ñoom nelaw dañ daan toog ba nelaw fekki si leen waaye ñoom duñ fekk ji nelaw déedéet duñ du ñoom daanuñu waaj a nelaw comme tey ku mel ni man lal sa lal ba mu jekk nga tëdd ci kaw lal bi di xaar gëmmentu ñëw nga nelaw mag ñi duñ daan def noonu mag ñi foo leen fekkaan ñu ngi ci seen téere yi di gëstu xam-xam guddi ñu ngi seen kurus yi di tudd yàlla ba gëmmentu fekk leen fa te gëmmentu woo dañuy dem ba nelaw yu noot leen dëgg ñu door a nelaw waaye ñoom duñ duñ duñ duñ sabab lu nelaw ñoom nelaw moo leen di fekk dama daan dégg imaam kii Ustaz Ibrahima Mahmoud jóg mu doon wax ne moom dafa seetlu woon ne Baye Niass deux de temps la daan nelaw. deux heures la daan tëju. quatre heures pile ubbiwaat na buntam. kon xam nga ne kooku mën naa am deux heures de temps yooyu sax nelaw defu ko ci. amaana leneen la la doon def. mag ñi ñëpp nag noonu lañ meloon. kon nit ki warul di bëri nelaw bari nelaw dafay rey xol. maanaam nit ki sooy nelaw nelaw yu bëri. nelaw yu bari dafay rey xol baaxul kon comme ci weeru koor lañ nekk da nga war a góor góorlu ak lu metti métti metti nga fexe daal góor góorlu ci yenn jaamu yàlla yi nga xam ne mën na laa man dana laa dimbale sa koor gi gën a rafet dana la dimbale sa yoolab koor gën a bëri ndax loolu moo gën tëdd rek di nelaw nelaw yu bari Mm-hmm. day wowal xol day xol. Mm-hmm. wallaay. ndax mm-hmm. day gën a wow day waaw léegi nag koor dagan na bàyyi nga lekk bàyyi nga naan ba ngoon jot. léegi dagan na nga lekk dagan na nga naan. léegi li la rawoon ci bëccëg bi nag xanaa war nga ko mën a récupérer ci ngoon gi. waaw waaye nag <laughs> du du lépp nga mën a du lépp nga mën a jëlandoor. Mm. xam nga tey soo demee ci looyin looyin yi buñ ne 6 jot na rek yaa ngi teg mburu kafe yaa ngi teg banaana pomme xaal dégg nga ay keek dégg nga euh, fonde fii nii lépp nga teg ci basan bi imam ak loo bëgg bëgg bëgg lekk mënoo cee raw li nga xamante ni moo xaj sa biir bi mënoo cee lekk loo xamante ni li xaj sa biir bi da nga ci mën a def kon tamit ah, ñuy bàyyi suñu xel tamit ci façon lekk yi ndax tey bëri na yenn feebar yu bëri ci weeru koor la waroon a wéree ci nit ki waaye ci weeru koor lay gën a évoluer ci jamono juñ toll nii nag ndax li ko waral mooy ñam yi ñuy lekk léegi neex na neexaay boo xam ne li ci ëpp doole soo ko moytu da yóbbu ci feebar mais du la yóbbu ci wér gu yaram ak lu koor baax baax ndax koor dafay rey yenn feebar yi nga xamante ni dafay nekk ci doomu aadama bi waaye nag ñam yi xew léegi mhm. ku ko moytu dana la yóbbee ci feebar yu bëri kon su ko defee ñu bàyyi suñu xel bu baax mhm. ndax tey jabet yomb na mhm. tension yomb na yeneen ak yeneen yomb na te tey ñam yi bëri léegi tey boo xoolee suukar si dafa doy waar ku ko moytuwul tey mën nga cee jëlee jabet ndax tey boo ko seetloo rek boo boo bëree looy lekk ñamu suukar soo xasee tëdd maanaam nga xëdd ba pare dellu tëdd mën naa am balaa ñëw a 10 fi génn tuuri ndox lu mat 5 fois wala 6 fois loolu na dafa am signe bu mu lay wan ne la tey war ngaa bàyyi sa xel bu baax ci yi ngay utiliser kon loolu tamit nañ ko bàyyi xel bu baax imaam. Mhm. Euh, mhm. nga def ci lu yem. Mhm. ndax yonent bi salaam salaam nee na. Euh, woor waaye na ngeen dog mhm. booy dogit nga dog ci lu dagan dagan lu teew mhm. waaye woor rek bëccëg bi lu waaye di jaay ngeen ko bàyyi ma ci nangam mhm. bàyyi ma ci nangam bàyyi ma ci nga bëgg a dajale loolu lépp ah dana tax doo man a julli déedéet doo mën a naafila doo mën a jàng alxuraan imaam bu la jiitee saar wu mu jàng nga ni dafa gudd dafa gudd julleen gi dafa parce que lekk biir moom bu ko see day tayal waaw bëgg a nelaw. dëgg la dem yomb ko lool. Mm-hmm. te kon yooyu taxul ñuy wax weer koor. Mm-hmm. ndax yonent bi dañuy suumu tasiru woor leen mm-hmm. ngeen ngeen wér wallaay wér lekk gi ngay parce que sa moteur bi. 12 mois 11 mois mi ngi doon liggéey. 24 heures si 24 waaw 11 mois. mi ngi doon liggéey amul ndox laay. léegi nag benn weer bii ci lañ nañ ko wàcce. defaraat ko. wàññi lekk. wàññi naan wàññi lépp. defaraat moteur bi. te bu weeru koor bi jàllee. wax dëgg yàlla nga gën a wér. gën a sawar. gën a euh, bëgg loolu moom waaw loolu moom ku ko def yaa ngi xëtt sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yonent bi daf ne. laata tazaalu ummati fil xayri maa ajulul fitra wa taaquru suxuur mu ne sama xeet duñ dëñ di nekk ci yiw mukk feeg ñu ngi gaaw a dog di yéex xëdd kon nag yow boo melee ni am oustaz jaase nekk ndakaaru climat bi neex lool ñu war a dog 19h23 wala 25 19h25 jot xiifoo maroo ngeen ah man daal damay bàyyi ba ci kanam su boobaa yaa ngi génn sunna maanaam toppatoo ndigal yoon bi sallallahu alayhi ak nu mu mën a demee rek su heure dog jotee rek dogal ak nu mu mën a demee su heure jàpp koor jotee rek jàppal koor te bul bul bul déranger maanaam li ñuy bañ mooy heure dog jot na nga war a dog nekk fa di jàppoo ka di lal ay basanka di lal ay ay ay ay napp pour ndëgoo yi demee noonu ba nga xamante ni tey heure bi nga waroon a dog dafay passé loolu soo ko defee rek. yaa ngi xotti xormaay sunna yaa ngi tamit teggi ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que léegi weeru koor su ñëwee rek danañ joxe heure yi nga xam ne ci la ñuy dog danañ joxe tamit heure yi nga xam ne ci la ñuy fas koor kon yooyu dañ ko war a respecté maadaama ñu ngi xam heure bi ñu war a jot heure bi ñu war a dog ak heure bi nga xam ne ci la ñu war a jàpp koor waaw imaam Mm-hmm. ki nga xam ni mm-hmm. bu koor gi euh, jë ñëwee booy dog mm-hmm. da ngay mel nag wuy lekk rawatina booy xëdd nee na kooku moom euh, yiwu rëy dana ko raw ci koor kon xëdd baax na lool ndax yeneen bi alayhi salaatu wasalaam moo ni tasaxaru. Mhm. ne baraka. Mhm. waaye am na ñoom naa man mënuma yeewu di lekk. Mm-hmm. man daal damay mbëstën wala damay nàngam. Mm-hmm. mais comme santaane la yeneen tuddee ko santaane. nga mm-hmm. lekk guddi waxuñu la nga jóg di tiim boolu ceeb. déedéet wala ngay naan ay craafi fonde ak loolu. wallaahi ñu ñaari tàndarma wala ñetti tàndarma na tóol rek. nga naan ndox. wallaahi loolu lekk la. wallaahi waaw comme boo ko defee ci bëccëg bi dafay araam. guddi gi sant nañ la ko def ko. loo taayal taay parce que nag. ku dul xëdd moom doo julli fajar. déedéet déedéet. waaw ku dul xëdd. doo julli fajar. doo julli wax fajar. déedéet. te dañoo bëgg ji waxtu julli yëpp. doo koy julli. kon nag jub fajar. naan tuuti ndox. wala jël ñetti tàndama. wala nga lekk benn bonbon bu ndaw rek. wane ni man daal damay wër suur. loolu dafa nekk mujj. ci ñi nga xam ni. Eh, ñi ngi woor. te ci fukki fan yu mujj yi. Eh, ci digg bi kon. ñu baal ma ñu fan yi ci. dañ ci gën a góorgóorlu ci bari lu ñuy jéggulu yàlla dañ ci gën a góorgóorlu ci lu a leele ñam waaye nañ ci gën a góorgóorlu ci dimbali ku ñu tànn borom alal yi tam nañu gën a góorgóorlu ci génne seen asaka yi ndax asaka yi àq la te àq jooju dañ ko war a jox seen borom te asaka alal lu mu bari bari boo ko xamul ni ñu koy génnee. Uh-huh. joxe woon naa fi benn numéro uh-huh. ni 40 rek. macha allah chiffre boo ko diffusé rek. Uh-huh. bu doon 1 milliard. nga jël 40 diffusé ko. nga ni milliard diffusé par 40. mu jox la 25 millions. mu nekk asaka yi 1 milliard. kon loolu yomb na. jël dem fenn. loo am ci alal. 1 million diffusé 40. mu jox la 5 25 euh, mille. 25 quarante uh-huh. allah waaw imaam ñu ngi santaat yàlla beneen yoon rek di wax ne fi ñuy tëjee suñu kàddu rek mooy ñu bàyyi xel bu baax ci li nga xam ne moom la ñu yàlla sant comme lu mel ni ki azaka euh, xam naa nga baal ma rek ma netti la ci xisaay saala ba bi nga xam ne ci jamono yonent bi sallallahu alayhi dafa nekkoon ku ñàkkoon koo xam ne amutoon dara daan teew ci waxtu julli juróom yépp benn bés mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man daal ma bëgg nga ñaanal ma alal ah yonent bi dànkaafu ko ay yoon mu ne ko ñaanal ma rek a ah, yonent bi ñaanal ko saala ba daal di bëri ay gàtt ñu dem ba benn jamono saala ba daan na julli ci fajar tusubaar tàkkusaan timis gaye bi maanaam mën nañu wax moo daan njëkk ci jàkka ji moo daan mujj ci jàkka ji bi nga xam ne ñaari yonent bi moom xam nga ne du dégg maa bañ comme ñaanal yàlla lu mu la ñaanal yàlla yàlla daf koy nangu ah alal ji commencé di bëri saalabatu daan ñëw fajar di ñëw tusubaar di ñëw tàkkusaan waaye timis ak gaye moom du du ko ñëw ñu dem ba jamono alal ji di gën di évoluer rek mu dem a dem a dem a ba nga xamante ni dootul ñëw tàkkusaan dootul ñëw tusubaar ñu dem a dem a dem ba nga xamante ni mujj gi ajjuma rek ajjuma ba ajjuma lay ñëw ci julleekaay bi yonent bi sallallahu salaam laajte ko ñu ne ko ah saala bu moom kat léegi dafa bari alal de xam naa gàttam yi la bi mu ñëwee ci yonent bi yonent bi laaj ko mu ne ko man daal gàtt yi ñoo ma tënk ba nga xam ne heure julli dafa may fekk daal ma ne ci gàtt yi waaye xoolal saala ba bi nga xamante ni yàlla farataal na azaka yonent bi yónnee ci saala ba ne su ngeen demee ci moom wan leen ko ne yàlla dafa farataal ci jullit ñi ku am nangam nangam ngay génnee biñ ñëwee expliqué ko saala ba bi mu compté gàtt yi parce que dañoo wax boo amee ñeent fukki gàtt dangay ngay joxe benn te doo joxe gàtt boo xam ne dafa lompañ wala dafa tuuti gàtt yi gën a baax ci gàtt yi moom ngay génnee parce que kuy joxe dangay joxe lu baax. léegi saalama bi mu estimé alal ji li mu war a génnee ci alal ci gàtt mu xool ko xool mu bëri mu ne ah lii daal ay caaxaan la ñii dañoo bëgg a ñëw jël ci sama alal ji daal di rëfale ñooñu ñu delluwaat ci yonent bi yonent bi waxul dara mu bàyyi. ñu dem a dema dema dem ba jëmmi jamono Aboubacar ni Saddiq nekk xalifa waaw xisa bi dafa gudd <laughs> waaw kon su ko defee incha allah waaw baana kon kon fi may tëjee daal mooy euh, doylu dafa am solo ci nit ndax yonent bi dafa wax ne laysa al qanaatu bi kasratil adad wa innama al qanaa nafsi mu ne doylu nekkut ku bëri ay alal bëri ay bien déedéet doylu mooy nga doylu sa jëmm ji doylu sa jëmm ji mu am solo nit moom soo amee looy dundee li ci tegu rek bénéfice la soo amee dëkkuwaay boo xam ne boo duggee tëju kenn du la gis am yére boo xam ne boo ko solee say awra kenn du ko gis dul rek doy na li ci des moom mooy jaamu yàlla imaam kon ñu ngi jégalu ci kàddu yi li ci jub ci yàlla la li ci juba di ngeen xam ne suñu gàtt xam-xam la ak suñ ñàkk fasaha

waaye di yóotu ci lu baax yal na ci jot loo waaye di taw ci safaan yal na ci yàlla musal te sunu kër gi yal na ko yàlla dooleel ba def fi xéewal ba lépp lu ñuy yóotu ngir liggéeyal seen réew ay ndaw ñoo ko yor nekk fi bëgg liggéeyal seen réew te néew ay moyens lool yal na yàlla jàppale leen ba li muy bëgg defal seen réew def dimbali seen i morom. Uh-huh. dimbali nawle. Uh-huh. sunu borom defal leen ci lu kawe seen jor. Uh-huh. yal na leen yàlla bett ak i xéewal. li ñu bëgg a liggéey Sénégal ñu defal ko. asaaw billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala